soxor kele booy fay cey làmb soxor kele booy fay xale yi de jàppoon naa ni dóor mu daanu mun na am yi de yaakaaroon naa ni dóor mu daanu mu na am ci combat bi Adama de sant yàlla boo ko gisee nu mu mel ni mu gisee ci stade bi man dama tiit sant yàlla kenn xamul lu mu takk sant yàlla kenn lu mu ràggoo sant yàlla daal mu ngi ci arène nationale actuellement nii. jinne daaw rek maam Kumba Kastel maam Njereek maam ñëpp indi na leen fii ci bi indi na ko fii de man daal waaru naa ci sant yàlla mi sant yàlla de lemu rango Adama loolu faw nga xool ko faw nga xool ko jongale na ko ndaysaan booy fay ndaysaan booy fay ak soxor kele soxor kele Adama Diouf loolu aalu non non kii war na di jabar di jëf seen gan ak ñoom liiru jaan ñoom say lu ñor kay du ma ci bokk lu tee rek laay bokk <laughs> ah, ay tapale lu ñor ay tapale war na takki jabar te yëgalu ma dama la bëgg na ma loolu ñëw liiru ñëw wuli ñëw ñu lay laaj te boo amee loo ma laaj ci réew mi nga ñëw di ma laaj boo ma laajatee la mu waaye gàtt dama am doole waaye dama doole nga wax la man daa mën a màcc laa ma njool yu gudd ban liiru ja yow. waaw yow soo amul combat sax da ngay damay même jig na ma baax su ma jig laay la mais fii nekk na mën naa fi nag ay affaire gars na dañ ma jox ma boole man dama war a boole ndax damay fekkal Sénégal yi tout le temps. yaa ngi toog te dama am gan ku nekk suma ginnaaw ah. fan nga toog ci kaw wala ci suuf. non maa ngi Ousmane laa indi Ousmane dem léegi. non toogagum ma sax damay dem gis ah, suma menace. pour ñu ndeysaan mu ngi noonu. lamb jaa ngi noonu. Adama Ndanane yaa ngi noonu Boy Faye ndeysaan ma nga noonu ñu ngi bëre ñoom ñaar cey soxor kele ak booy fay soxor kele ak booy fay ndeysaan soxor kele booy fay soxor kele booy fay ñu ngi ci làmb ji dara amagul ba tey soxor kele booy fay soxor kele booy ah combat baa ngay bëgg a yàgg bëgg a nag am na ku ci noppam di xonq di naaj jël na soxor kele booy fay soxor kele fay Sokhar Kelle ak Boy Faye jël na ko Sokhar Kelle Boy Faye wër na daan na Boy Faye daan na Sokhar Kelle Boy Faye daan na Sokhar Kelle Boy Faye daan na Sokhar Kelle waaw waaw waaw laajte ma gosu man combat bi doo léegi ma xaw a yàgg tuuti sama gosu dafa ma ko dama ko respecté li ma wax laa bëri mais kii maa ko dàq bëri maa leen mun nan ma jox samay morom sama gosu xam na leen booy di bani bani yëpp maa leen dàq bëri maa leen mun. soxor kele soxor kele. kii mooy soxor kele. si na de. nopp bi lii contact la. lii contact laa ko gaañoo. man kii du ma mën a mën a ñoom Zarko laay ñoom ay entraîné laajteel kii. bi mooy sa ñaata combat. premier combat rey gars ah. fat laay def fat. na ma la sama ma rey leen. ñan la ay ñoom Lora yi ay ñoom Osiga ay ah, ah, Boursita jox ma man bomat laay bëre may soog a ñëw arène boo ñoo dox ma ñëw arène dama leen di jeexal wasalaam jaajëf